seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang bisimila ku tiitutoon ba léegi jamono yi war ngaa tiit lool ginnaaw ba nga déggee kaddu yi nga xam ne xalif général de Tidiane wax na ko yéen kaay yëpp nag xëye ku tey jii seen xëtu njëkk kii di Abdou Aziz si Al Amine lu mu wax nee na tension politique yu bari yii boo leen sàgganul ah Ah, ah, ah, dina métti lool ci Sénégal man ci yegg sax ba ci guerre civile yéen kaay bi di laas na Al Amine dànkaafu na de bu baax a baax témoin ne dëgg la kay ba mu ko déggee dama rap rappi tiit lool yéenekaay bi nga xam ne moo di la Le Quotidien ne dafa mel ni ay dénkaande almaxtum la al amin yeggale ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi vox populi ne li ma gis nii ay mise en garde la maanaam dànkaafu yu leer la al amin waax waaw al amin ci boppam la mu waax yéenekaay bi la tribune moo ñu ko jottali nee na réew mi nu muy doxee waxante yu ñaaw defante yu ñaaw boo sàgganul dinañ pëccëxoo ci li nga xam ne moo di guerre civile marabo bi yamul ci loolu de nee na tension yi kaar bari na lool te tension yii may gis nii nag boo sàgganul ci violence bu métti lañuy ñuy nar sërëxal ci biir yenekaay bi du l'observateur xalif général Tidiane ne li may gis nii dara baaxu ci dara baaxu ci réew mi yéen a ngi koy foyee bàyyi leen saagante yi bàyyi leen xuloo yi bàyyi leen sos yi bàyyi leen nar yi li ngeen di def ni tegu leen ko fenn loolu la wax politiciens yi vox populi jot lu ñu ko marabu bi nee na ngalawaay xool leen ndono homme politique yi fi nekkoon ci réew mi ku ci mel ni Blaise Diagne Ngalandou Diouf Lamine Guèye al amin ne ñii di politiciens yi yéen rek yéen ñu lëjal lëjal ngeen ñu witte sonal ngeen ñu toppee ngeen ñu mbooroo sonn na ñëg ci seen i coow tourné na Macky Sall ci boppam yow yaay président de la république war ngaa yaatu dënn lool may nopp ni ñëpp di la déglu ba si sax sa kujjee politique gi ñi nga xam ne ànduñoo ak yow loolu la wax yéen kay bi la témoin jot lu ñu ko jamono yi nag ku yor kàddu xalifa bi moo di kan Serigne Mbaye Sy Mansour moom la ñu yéene bii nga xam ne moo di le quotidien waxte ji jii sa Seck déglu ki nga xam ne moo di kilifa gi ala amin ba mu waxee ba noppi ci biir yéene bi laa turbine mun a booloo nekk benn loolu mooy lu ëpp. pour doole ci réew mi te war nañ ko sàmm bu baax a baax Serigne Moustapha Sy bu Moustarchidine wala Moustarchidaat yi yenn kaay bi l'observateur yëgal ne génn ci noppi gi mu nepp lu mu wax nee na Macky Sall bu bëggee liggéey ak moom faaw mu bàyyi kii nga xam ne moo di xalifa sàll te nag Macky Sall xamul lu Abdou Diouf di liggéey de ñu ne ko sëñ bi lan lay liggéey mu ne xanaa fexe ba Macky ñàkk nguur gi socialiste jël nguur gi dañ ko ko sas ci international socialiste wax ci dossier Khalifa Sall zara Iyane Thiam ci biir yéen a kaay bi la témoin mu ne Macky Sall du ci lenn tëjul kii nga xam ne moo di Khalifa Sall Aminata Diallo na ko waxoo dëgg kii nga xam ne moo di Khalifa Sall kay jamono yii lii dëgg ba nekk dëgg moo di Macky Sall moo na ko ràpp ci biir kaso bi te moo gën a yées ci président yi Sénégal ma sa waaye lu mu ëppalee Macky Sall mooy directeur campagne xalifa sàll jamono yii Vox Populi ne ah am na leen tamit loo xam ne mën nañ ko sant ndax doyen des juges fexe na ba léegi xalifa sàll fa mu nekk ci biir kaso bi di jot ay documents di ko signé Ousmane Tanor Dieng moom ma ngay wax ci crise partialiste ci biir yéenekaay bi di laas ne bàyyi leen ñuy lappi-lappi rek bés bu jotee ñun di leen jël suñuy responsabilité Adama Barrow wax lu doy waar nee na Yaya Jammeh lu toll ci cinquante cinq milliards la sàcc ca Gàmbi yéenekaay bi di laas moo ñu ko jottali parce que Mali dafa toroxal suñu gaynde yi 82 35 45 points d'écart jërë ngeen jëf déglu ñu leen di jëy soo jëm seen si dakar matin point com incha